Euh, asalaamaaleykum maa ngi tudd Awa dëkk Grand Médine à Dakar euh, maa ngi fii nag euh, Kër Malle chantier bi ñuy wax Tobane Power en tant que technicienne en génie civil. Euh, fii maa ngi fii depuis décembre mais je faisais des va-et-vient entre Dakar et à cause des cours ci liggéey ci jàng bi moo tax dama doon dem Dakar souvent di ñëw mais depuis trois mois maa ngi fixé wu fii. fii am na ñaari jigéen yu nekk électricité mais bu dee génie civil man kese maa fi nekk comme jigéen à part ñi nekk bureau am nañ maîtreur bu nekk bureau bu jigéen am nañ aussi secrétaire mais bu dee sur le terrain man kese la. nga nekk c'est pas facile yombul yombul parce que domaine góor la mais benn instant aussi yomb na parce que ñi ma fi fekk jàppee nañ ma comme seen jigéen euh, lu ma soxla rek ñu ngi ciy taxaw lu ma comprendre ñu jàpp ci lu ma comprendre ñu bàyyi ma ma dem. si jafe li si jafe mooy dox bi dafa metti pression bi day bari. milieu góor la daal moo tax du mën a yomb si jigéen il faut ndànk-ndànk pour ñu mën a dem.